d'accord euh, dañu nekk nag ci ci ci ci jamono boo xam ni yaa ngi dégg lu jëm ci mandat président de la république moo indi coow mu am lu mu ci wax euh, ba dem ci ni jaratul ma ciy wax ndax su ma ci waxee lii am su ma ci waxee lële am ndax yey na la kàddoom yooyu ci ni xalaatu la briguer beneen troisième mandat pour yow. xam nga Pape Macky Sall kilifa la. mooy président de la république. bu ñu demee ba mu ragal tontu. parce que bu tontoo ñaari kan nooy nekk ci ñoom te buggul ñuy mer buggul ñuy mer boobu waa kilifteem moom des na autorité ñàkk na ko loolu laa ci mën tontu bu ma nee waaw damay bokk élection mu ne réew mi tàkk bu ma nee déet sama parti tas mooy ngonte boom moom boppam rek. candidature am ak partem d'accord waaw. ok loolu foofu laa ci mën a yem. loolu mooy non li ñu ci jàngat. waaw peut-être ci kàddu yi mu wax. waaw mais ni nga gisee est-ce que yaakaar nga ak juridiquement ndax yàlla na aussi mu mën a briguer un troisième mandat. xam nga soxlawul juridique wala juridique wala bañ a juridique mu ngi dépendre ci moom 2017 bu bëggoon moom bu bëggoon bu bëggoon. day présenté waat élection président day day def élection présidentielle yomboon na trop constitution bi day bind bind ko jox ko du laaj avis bind ne lii laa bëgg jox ko peuple bi peuple bi moo ëpp droit moo ëpp gën a kawe conseil constitutionnel. Mm-hmm. donc loolu donc lu dañ la. sept yi dañ na comme man lu mu ma waxoon mu dañ moo tax changé naa ci moom. balaa moo koy gëm daal gis ko. d'accord mais su wéeroo ci jurisprudence su Abdoulaye Wade nag. ci troisième mandat. jurisprudence su Abdoulaye Wade. Mhm. mooy lan mooy euh, demander conseil constitutionnel ndax am na droit def troisième mandat ndi ko Abdoulaye waa defee woon. ndax nu ko Abdoulaye defee waaw waaw mais bu ko conseil constitutionnel joxee nga xam ne conseil constitutionnel joxe na ko te mu def ko wante na ko def. léegi ngoonte bon dama koy conseiller ci sa xalaat aw moom xalaat boobu non non damay damay lay laaj. parce que loolu xam nga daf fi daf fi. daf fi amoon Pape il faut que déglu ma <laughs> daf fi amoon ko laaj ma ne mhm. heureusement def nga ko sama xel mhm. président nga ne leen mooy sa mhm. mais bu boobaa ban taxaw nga ci am ma xaar conseil constitutionnel bu ci àndee ak moom. ma ma ma déggoo ma ne moom lay xaar bu ne julli jot na ma ne julli na bu ne amul ma ne amul jeex na. Mm-hmm. loolu da ci xaw a maandu de xaw ma lu tax. non maanduwu ma dama lox li am. Mm-hmm. comme man xaw ma fu mu jëm xaw ma lu muy def ragal na ko wax ragal nañ ñii ragal nañ ñi damay xaar ba mu décider. Mm-hmm. d'accord. Euh, président bëgg naa ñu gën a dellu siwaat un ci seen parti ndax daf ci am ay nit yoo xam ni jàmbu nañu ba taxawal ànd suqali euh, soppi euh, ñu nekkoon nag ay cadre émérite yoo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi ràññee nañu seen xar kanam ci PDS ak seen taxawaay ñu mën ci lim ku mel ni Babacar Gaye mën ci lim ku mel ni Maître Amadou sàll mën ci lim ku mel ni Omar Sarr mën ci lim ñu bëri bëri bëri ñooñu nga xam ne ay kàngam lañu départ bu mel na comportement bu mel noonu Euh, ndax nekk na avantage pour parti démocratique Sénégal. xam nga amul benn départ ci organisation wax nañ ko sànq. Mhm. Euh, boo xam ne bii bu génnee ci organisation bi organisation bi du am lu mu yëkk mais du tere mu dundaat dagg banqaas ci garab taxul garab gi dee. yenn saa yi sax dinañ ko def élagé pour mu gën a sëq mhm. surtout bu nawet di ñëw mhm. donc loolu seen responsabilité ñoom def nañ ko ñu ngi seen responsabilité ay la yoween ça fait longtemps que waxuma si loolu parce que gisuma njariñam mhm. Abba ah, man man man loolu ni ko soofantalee président jaaxal na ma da ko xaw a soofantal non mais si mais parce que dama ko yëgul xam nga ku nekk ak li nga tal ak li nga jublu boo amee loo xam ne da nga ci jublu nekk ci du la tardeel ci loo jubluwul ñoom ñu ngi jublu ci li ñu jublu am nañ ci droit da leen di jox seen droit ci loolu xamuñu nekkoon nañu mu am ñu jubluwoon ci noonu ñun ñëpp am na lu ñu doon wax ci ñi ko defoon d'accord waaw def nañu loolu seen séer la d'accord ah, jeex mais ñoom seen ëllëg si dara def ci leerul ci wàllu politique déggoon nañ fi benn euh, benn euh, benn benn communiqué bu PDS defoon rek euh, daal di xool ni Oumar Sarr ay actam ñoom jël nañ acte ak yooyu ci loolu mais waxuñu ci dara lu leer c'est-à-dire yéen pare woo leen pour dàq leen ñoom pare wuñ pour démissionner ah. lan moo ci lan xam nga xam nga ne da ne ñoom seen dara leerul ci mbiru politique mais ñun suñu bis ma leer na ci mbiru politique ngoonte ñoom ñoo am leen ko comme seen ba da nga ne seen dara leerul ci mbiru politique ñoom ngay woo ñu leer la man suñu bos leer na ci borom pro politique ñun li ñu war a def leer na suñu bopp ñoom nag yow da nga ne ñoom seen bopp seen bopp leerul ci mbiru politique Pape da nga leen di waraaj leen koy tamit surtout yow koo woo muuyu la. Mhm. d'accord euh, président euh, tey dañu bërki démb dañu xëy daanaka ñetti rapport cour des comptes wàccandoo rapport yi gis nga jafe-jafe yi nga xam ni jur na ko indi na ko. ci yorinu réew mi ci ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee. Euh, rapport yi bi nga ko gisee ak tontu bi nga xam ni président wax na ko ci. ni dinañ xool commission boo xam ni dina taxaw ci taxawaay boobu euh, xool itam yan matuwaay lañ war a mën a jël ci rapport yi euh, nga xam ni épinglé na ñu bëri ci ay ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci régime am ban gis-gis nga am ci rapport yi ak génn boobu nga xam ni génn na ko ci. man amoo problème ci rapport yi aw ci problème rapport yi ak lu ñu mën wax ak lu mu garaaw garaaw garaaw aw ma ci problème aw ma ci njaaxle rien ne me surprend. waaw ah, président nag tey dangay nga ñëw nanga woo wax. waaw xam loolu daf ma jaaxal. question yëpp da nga ko da nga ko fermé. a tëj euh, waxtaan bi dama la koy wax parce que problème bi problème bi nekkul bind rapport yi moo gën a yomb xam nga lan moo lan moo ci des ñi war a rapport yi ñoo ñooy problème bi. mooy mooy justice. waaw mooy mooy la cour des comptes. mooy le président de la république. moom ñu jox rapport yi. waaw ñoom ñoo am problème. ñooñu ñooy ban problème lañu. ñooñu ñooñu ñooy suñu problème. Mhm. ñooñu ñooy suñu problème. Mhm. nit def na lu mu war a def jàpp nga ko yóbbu police. dañ la fekk nga yore oto yéeg ci kaw circulation bi ñu jàpp la. Mhm. wala da nga def ci école bi loo war a def ñu yóbbu la ci sa kilifa. dépense yow yow ki la jàpp ji pare na ci. xam nga ki ñu des kilifa gi la jox xam nga lu Cour des comptes wax ci tardé bi lu mu waroon génne at bu nekk. mu ne mën naa tardé c'est-à-dire que fu Cour des comptes mën naa am tardé bu 2014 mën na ko def 2024. Pape est-ce que est-ce que c'est sérieux ci kooku lañu war a jaaxle jox la ay moyens yokkal la xaalis jox la xaalis jox la liggéeyukaay di la fay weer utal la bureau climatisé la ko di la tabaxal immeuble bu rëy boo war a nekk. ñu ne la lii mu ngi nii ñu ne tey lañ la ko jox bu 2017 2019 nga génn nga ne man nga tardé ñetti at ñeenti at garaawul d'ailleurs yi ci des feeg ñeenti feeg ñeenti at ñetti at di nga ko génne mais c'est extrêmement grave Pape foofu la problème bi nekk problème bi nekkul ci rapport yi loolu lu ko indi maintenant pourquoi cour des comptes am loolu. cour des comptes comme euh, la cour des comptes bi ñu ñëwee dañ ko fi fekk fi lañ ko fekk ñun. inspection générale dañ ko fekk mais lépp loo fi gis ci problème bu transparence ci diggante bi ñoo ko fi teg. ba mu des OFNAC. waaw déglu ma rek. bàyyil ma ñëw. waaw waaw mais dama lay fàttali rek. waaw non maa ngi ñëw Pape. bu yàkkam OFNAC moom. Pape ne sois pas pressé. Mm-hmm. sinon tu vas danser mal. Mm-hmm, d'accord alors donc léegi ñu indi fii la ñu fekk commission national de la lutte contre la corruption et la concussion pour ma ñëw ci OFNAC après ART euh, agence de régulation des marchés publics. la direction des marchés publics la CENTIF yooyu fi lañ ko fekk. muy ay instruments yu bees yu lutter contre la transparence ñu jël suñu constitution wax ci ne ko transparence ak bon gouvernance dafa bokk si suñu constitution en 2001 donc instruments yu ñu yor pour liggéeyee ko rek fi lañ ko fekk. def ci déclaration de patrimoine du président de la république jël ay moyens jox ko cour des comptes. changer loi sur la vérification de l' général générale d' jox leen ay moyens yokk seen salaire waaw ñoom nag ñu ne ko liggéey bi dañ la ko jox bu paree boo ci liggéeyee douze war nga génne rapport ñu toog ñeenti at juróomi at génnewuñ ko te li tax ñu génne ko dañ leen yuuxu ba pare nañu nag yu si di ñëw aussi day tardé waaw kañ kan ngay rectifier kañ mooy on a des problèmes avec la cour des comptes cour des comptes magistrat cour des comptes am problème ak seen réew. am nañ seen problème ak état bi est-ce que bëgg nañu bonne gouvernance ak lu tax ñu def ko mooy première question commission nationale de lutte contre la corruption moo remplacé OFNAC Pape OFNAC xam nga ma wax la ci lu leer waxaat ko léegi ñëpp di ko dégg du lu màkki Sall indi Macky Sall indiwu ko inventé wu ko lu Diouf moo ko bind en 98 98. tuddee woon ko nan OFNAC wallaay c'est-à-dire que sénégalais yi. ah euh, wax loolu waaye itam président Doudou Wade. mais euh, non Macky Sall wax ni ñoo ko fi indi pour ñun ñi gouverner tey jii la. ma ne euh, duñ ci protégé kenn. waaw waaw déglu rek Pape rek rajo laay waxee rajo laay waxee bu fekkee ne am na kenn ku ko mel di ku nekk dans la magistrature te nekkoon sous le régime Abdou Diouf nga ñëw weddi ko bu fekkee ne forum civil bi ko bi ko jox ndëgëm ñoom ñoo ko moom ndëgëm jëlewuñ ko foofu wala déet. ak Mouhamed Mbow na kenn koo xam ne kii mu ngi dund magistrat émérite la muy Doudou Ndir moo jiite atelier ba